Sénégal ay may gaal jóow leen yéen te manko Sénégal ay sunu gaal jóow leen yéen te manko Amadou Diarra nekk ci département de Pikine gërëm askanu Sénégal gi yëpp gërëm gouvernement du Sénégal ci ndimbal bi mu indi teg ko suñu loxo ñu war ko jox quartier yi ngir ñu dem ci askan bi yàlla dafa def nag ñun euh, ba ñu motalee dund bi mu ñëw ñu stocké ko ci commune bi au niveau communal euh, liggéey nañ ànd kook askan bi su may wax ànd kook askan bi c'est extrêmement important ña ca war a bokk ba ñañu foogul ne sax waruñu cee bokk dañ leen woo boole leen ci taataan xelu ñëpp muy concertation massive ci xel yi ci xalaat yi doog a dem ci pratique ñëpp rafetlu ko parti politique bu am ci Sénégal terme de référence yi ñu préfet jox ministre Mansour Faye jox ñu ko ñun dañ koo génn weesu ko dañoo respecté lim ñu wax yaatal ci ñëpp ne kaay leen lu président Macky Sall joxe la askan bee ko moom ñun moomuñu ko mais ñoo leen ko war a faciliter ba mu yegg ci ñoom. mairie bi tamit xam ne démembrement état la état bu songee xeex moom na jàpp ne moo ngi ci biir soldat lay doon ci juróomi fan commune Pikine Nord ba ñu motalee samedi dimanche altine talaata àllarba alxames pare nañ. amul secret moo tax Pikine Nord macha allah amul xulo amul xeex am na nag jotuma ci ndax bërugu sax dajul suuf yàlla mi mën lépp deful lépp président mënul jox ménage yëpp maire mënul jox ménage yëpp kon képp ku jàpp ne amoo ci na nga xam ne bëri moo dajul suuf te yàlla mi mun def lépp sax deful lépp